chers internautes, informez-vous sur Bawal TV officiel. Nous vous donnerons des informations sûres et fiables grâce à nos correspondants de tous les côtés. Qu'il ait fait, c'est une responsabilité kooku peut-être moi le gën a bëgg sax que ki ait une ba la ne la ci et je pense que ça c'est important Moi, personnellement depuis mon bien ko depuis quand même longtemps damay persister si di fàttali président Macky Sall me wax ko lu ko warul wax ça me manque de respect diko fatali rendez-vous bi mu am te waru ko raté parce que bu ma sama réew des fois ñi nga xam ne ñoom ñooy président il faut ñuy sen couleur du parti politique tek leen na parce que le président est le président de tous les sénégalais fi dafa melni à partir de moment bi ngay bi ngay prêter serment bu ba ngay génnaat des fois amna ñoo xam ce couleur du parti rek lañ lay xoolee. Mhm. un président. Il faut a def lépp pour que peuple am bëgg ko sur les actes yi ngay posé ba nga xam ne benn moment dootul casquette politique bi mais tu es le président de l'opposant le plus radical mais ki nga xam ne sympathisant aussi te loolu da nga ko dire, a di jëfee campagne électorale mën nga ko dem sol sa kii ne damay dem campagne mais yow yaa yore destin wu 17 millions de sénégalais te 17 millions de sénégalais yi dañ la war a di fàttali sa ay responsabilité parce que dara xeyu rek sotti olof Ndiaye dafa ne ku de ray sa mam soo séenee lu ñu dawal je pense que à partir de maintenant peut-être ñu fatali ben président ne la amulo droit def deuxième mandat. oui c'est réglé. mais ba ba le deux ça yu man dé ça yu ma yéw damay fatali président Macky Sall que ni tu as rendez-vous avec l'histoire bo demee ba ci ya 2 deux ans am benn jour may def ben anecdote ma man de président Macky Sall ku dem ci ku ko vaar di ko gis dafa melni nga dem Ligue des champions 90 vingt minute ñu jox la penalty nga war ko dóor ko ci lukaat bi du ma damay ba du ko rat parce que c'est mu ëpp na doole ay affaire mandat ñaari mandat il faut ça d'ailleurs ñu def attention ci affaire ben wala ñaari mandat parce que c'est dëkk bu dëkk bu am démocratie dëggantaan président bu faloo day sét ndax moom mën na fallu fallu sax mën na dem sax deuxième mandat bay dem troisième mandat xam nga ndax comprendre nga. Mm-hmm. c'est parce que des fois day melni buñ la falee président automatiquement voilà c'est automatique parce que lolu mën na tax tax nit luubal dara parce que danaan au moins c'est légitime buma défé deux mandats donc c'est dangereux que ñuy refrain boobu ñu wax. parce que dans un pays bo xamné démocratie bi dañu lay juger ci bilan bi nga def ci ce quinquennat ñu seet ndax war nañ la fal mais il faut que ñuy ñuy dem ba ben moment bo xamné ben président da nga def ben mandat doyoo ñu ñu changer la.

lii de lii de lii de bés bu ko défé yow yaay ñëk am sentiment de satisfaction parce que moment bi nga xamné ñu bëri waron nañ ko ko mëna fatali ñi ko gëna a ñu ci gëna bëri peut-être que benen bi côté bi lañ koy wax mën ko mën nga forcer parce que loolu lañ fi gis parce que aussi le débat sur le sur la troisième candidature nekul débat boo xam ne daf tombé du ciel hein? parce que lépp a ngi fi. Mm. am na nit ñoo xam ne loolu lañu loolu lañu yenu da ngay dégg nit boo xam ne dafay toog ne la bu ko bëggee dama ko koy jàppale. mom mm-hmm. ci mom la dess am ño xam ne dañuy toog pour man ki naan boko boo ma jappalé la ak ki nga naan amulo droit bi ñoñu bokku ñu bokku ñu dé koku bëss bo jëlé décision ko defuma kala naan amulo droit bi koku mo wara bëgg sax. Mm-hmm. donc contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ñi nga xamni ne ñoo doon wax président Macky Sall tu as rendez-vous avec l'histoire ñooñu ñoo war a gën a bëgg. Mm-hmm. te waruñu soxor iñaan que ni quand même victoire am le mom avant muy nekk victoire Sénégal. parce que quand même tey jii nii lu ñu mënti wax doomu Sénégal bu demee Bamako mu dem beneen dëkk wala mu dem euh, Côte d'Ivoire mën nañu gën a développer mën nañu def mën nañu gën a def lépp mais tey jii on a quand même benn président bu war a def deux mandats te dem te loolu loolu lañ koy ñaan ba pare loolu pour man aussi dafa am lu muy wane parce que booy tàggu sa sa réew même pour ëllëg wax naa ko fi keroog ma ne man président bu ñëw organiser sama refrain bi moo doon président Macky Sall responsabilité mooy organiser ay élection te du ci bokk ay ci te bu ci bokk boobu li ma ci daj lu ne dégg naa ko ci lu nekk dégg naa ko ci te bu ci bokk boobu te exactement c'est ce qu'il a fait donc aujourd'hui tey jii nii li am solo ba am solo mooy président bu bu def bilan président Macky Sall kenn mu ne deful bilan ñëw war a def def ñaari mandat organiser ay élection yoo xam ne ñi ci war a bokk yëpp dañ ci bokk ñu teg ko ci yoon mm-hmm. loolu aussi c'est très important mm-hmm. loolu mu def ko ce peuple moo lay njëkk a protégé ce peuple moo lay njëkk a protégé on est aussi amnésique hein? suñu papa Ablaye Wade yàlla na fi yàgg te même bi mu forcé def troisième mandat bi mu perdre élection yi bi mu dellu see fii dafa mel ni lañ ko meree woon yëpp dañ ko hmm. président boo xam ne da ngay mën organiser ay élection def deux mandats tok ci réew mi di romb gaay yi rombé ñu nan ay waay mo fi amon temps parce que man gëmuma ni ben nit dégg na sax si bir Euh, réunion boobu maire yëpp demoon maire yu Sénégal yëpp mouvance bi en tout cas ne vraiment ñoom ñooy peut-être quatre-vingt-cinq pour cent wu euh, communes yi que dañ koy soññ pour mu dem def troisième mandat muy dégg sax ay nit ñu naan mënoo ñu bàyyee kenn dëkk bu am 17 million de Sénégal <laughs> nga foog ni benn nit rek loolu moom pour man mooy aveu d'échec bi gën a mag mooy que yow sa bopp wóoluwoo sa bopp gëmuloo sa bopp parce que man gëm naa ni yàlla ku nekk rek am na lu mu la may. te bëri ay doomu Sénégal yoo xam ne xam leen ñoo xam ne xamuñu leen ah ñoo xam war nañu mën a dëkk bi kii day def le dem donc président Macky Sall def c'est à saluer et defalu ko boppam Sénégal yëpp la ko defal njabootam la defal ay sëtam la defal ba histoire du Sénégal fu ñu ko tuddee dañu président bi moo ko mën def parce que ñun ñii ñëpp dañu ah, ku fi am plus de 50 ans rek di ans 25 ans de plus da ngay naax a too dox yaram bi bañ dara jaru fi dara te damay wax tout le temps que nit sa woy way rek nga am ak li nga fi legg li nga fi bàyyi si ginnaaw ëllëg te loolu moom moo ëpp doole ay ay ay ay euh, ay nguur ak affaire yooyu parce que boo dundee soixante-dix ans yàlla may la ci trente ans ci soixante-dix ans yi wala vingt-cinq ans yoo xam ne haute les plus hautes yow gënoo fii kenn juddu gënoo fi kenn dara yàlla baaxee la ba loolu yëpp nga mun ko am war nga mën a delloo njukkal suñu borom jox keneen mu dem te loolu c'est au-delà de ay ay décision ñàkk décision moi je suis quelqu'un boo xam ne j'ai toujours dama mus a mus yàgg que c'est pas ay décider que renoncer bañ a renoncer pour man président Macky Sall amul woon droit def troisième mandat benn benn la ñaar ñaar la ñett ñett la ni ko président Ablaye Wade amul la pare Ablaye moo ko jur presque léegi bu demee ba jël li nga xam ne ñun ñëpp sénégalais yëpp doon nañ ko yaakaar am ko ci président lay Wade ñu bëri wax fa dëgg yàlla peut-être que loolu moo doon moo doon vraiment doon gën a redorer ni ñu koy xolé sax te deug rek la yalla bëgg xam nga tey jii ni moom mu dem ko jóge si moom dem ba ci ben moment bi mu décider ne da fay euh, du dem kenn ku soxoru rek waro wax que ni way ah c'est à cause de la pression du affaire pression c'est une décision bu mu jël te décision bobu li muy impacter sur suñu avenir moy que ce problème là n'existera plus au Sénégal maintenant maintenant le le plus important aussi moy que c'est fa mel ni nga jël ben poire nga xaj ko en deux parties la réalité que malal bi mu tek dafa une réalité et aujourd'hui il faut que nous jublu ci ne bala ñu def ben pas après yenen pas en arrière c'est important mënuñu ko sous-estimer Le, cas de Ousmane on ne peut pas sous-estimer ça. Mais, ah bon, les, problèmes sont réglés. Non, mm. il faut nous double aussi. C'est une responsabilité. Nous, nous, choses Mais il faut que nous double aussi. D'autant plus que aujourd'hui, même dans l'opposition, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions il y a une campagne électorale à organiser et demain, wax gars aussi entre maintenant et l'élection beaucoup de choses peuvent évoluer ah beaucoup de est-ce que président Maxal va organiser des élections et partir comme ça est-ce qu'il y a des gens qui vont qui sont en train de parler est-ce qu'il y a des gens qui vont se retrouver il faut pas reconnaître rek ce qui rek def lu ne je pense que brèche ñu pourquoi may wax un peu comportement de comportement de de de de de y a une quand même une proximité assez assez claire et nette par rapport à yenne partie même il y a quand même quand on parle de te te depuis des mois donc l'eau aussi ça risque d'évoluer ça peut évoluer Quand la entre maintenant et l'élection, il faut quand même question boobu ñu ciy poser parce que peut-être qu'il y a des alliances qui ont amené mais quand même changer donne complètement donc dama bëgg côté côté boobu ñu mais en tant que sénégalais vraiment wax fa dëgg dans 50 ans, dans faut ans foofu la en réalité dans 50 ans on ne sera plus là normalement. Hmm. en principe ñun presque. presque mais dama ko wax en général. non mais man ah, non non non ah, moi. mais déjà tu es à 70. Ah, non mais moi je peux vivre 125 non wax xam nga wax. xam nga histoire am solo. dañu ci

il y a un président bu tudon Macky Sall bi muy jël décision bi ki ni la ci wax motax tax lu waay di def tay dafa am lo xam ne technologie daf ñuko ko ëndil te loolu nit ñi dañ leen ko war di fatali gis nga lu fi way def sa sët da koy gis té fi kuñ fi tag sa mam nga genn xaalis joxe xaalis kuñ fi ne mbégan duur wala ñu ne keneen ak keneen nga genn alal joo am yépp joxe ko joy ñu ne sa mam fi defoon li té dañ lay netali lo xam peut-être que sax du dëgg loolu la wax in translation c'est-à-dire que dañ ko ba nga génération bu da ci ne mais c'est fini ce que je dis ce soir dans 50 ans mon petit-fils dina ko xool te loolu nit ñi dañ ci nekk à jour pour xam dara jaru fi dara les bons actes hein. prenons les bonnes décisions pour que ëllëg suñu njaboot suñu deret ñu mun ko sàmm ñu suñu réputation dara jaru fi alal jaru nguur jaru ko dara jaru ko nit ñi ñu jël ay décision yoo xam ne ëllëg seeni i mbokk ak seen i dëkkandoo duñ ci rus. Badara bismillah merci beaucoup.